dix ans ñu fal ma maanaam yàlla moo teg loxoom ci suma kaw loolu la ñu gëm maanaam li ma doon yàlla moo ma ko teg loolu mooy vocation mooy appel oote yàlla te loolu mooy suma ngëm-ngëm moo mooy may côté doole moom moo mooy tax ma jëm kanam ci suma responsabilité responsabilité bi nag li gën a fës mooy jiite jiite mbootaay jàngu bi nekk Thiès ci yoonu sellaay yoonu jub yoon bi neex yàlla bokk na ci dog ma xamal ma jàngal nit ñi euh, euh, téere yu sell yi di ko firi ak li ñu war a gëm li ñu war a gëm bokk na ci ma sellal leen ak pexe yu sell yi mooy sacrement yi bokk na leen moo joxoñ leen yoon fi ñu war a aw ndax ñu bañ a euh, ñu bañ a réer voilà donc c'est l'enseignement, la sanctification et le gouvernement. Alors, pour itam euh, donc l'église à Thiès, il un secteur qui est gëna fessel mooy affaire wérgum yaram affaire éducation l'école yi ak affaire jappalé doomu adama oyofal ko coono yi loolu bokk na ci li jàngu bi Thiès di fës man nag bi ma bi ñu ma falee ba tey jeunes yi nekkoon nañu bokk nañ ci suma soxla yi moo tax lépp lii leen mën a tax ñu jëm kanam maa ngi ci ak ñoom ndeke ñoo war a jiitu voilà maa ngi leen di ñaax jeunes yi surtout ñu jël seen place ci société bi mais avec responsabilité waaye ñu déggal déggal déggal njiit yi njiitu kilifa diine yi ñu jëkk a seen waajur yi ñu dellu ci mbaax ci euh, valeur ci jikko yi tax ba suñu société euh, nekk en tout cas mel ni mu mel jikko yu rafet yi loolu jikko yooyu nag ñu ngi tere selay waaye ñu ngi ci njaboot yi ñu ngi ci aada yi et jeunes yi war ngeen leen gànnaayoo ngeen bañ a surtout nag saxal jàmm ndege jàmm bu amul dara du am seen avenir sax euh, dina dina euh, du neex. sant yàlla war nañu tey ndege fukki at angi mu may suñu jàngu Cees ab sàmmkat di monseigneur André Guèye sàmmkat bu baax yaatu naturel oyof am yërmande te jege mbootaayam sàmmkat bu bëgg ñaan am pas-pas ci liggéey waare Léoncine bi te di ut pexe ngir suñu jëm kanam ci fànn yi yépp nee nañu ku lim juum wande may leen ma tey ma lim li ma sàkk fii ci Thiès mbaa li mu lawloo Monseigneur André Gueye sàkk na UCAO Isaïe Thiès moo di taawam sàkk na ak ay paroisse ak secteur yu bëri yu bees indi na station appui lawloo vocation yu bëri fal ñaar fukki làbbe ak ñett indi ay congrégation sœur yu bees lawloo jumelage diggante Thiès ak Bamber ak diggante Thiès ak Saint-Claude sàkk maison des jeunes li ko may doole ngir mu taxawal loolu lépp moo di bàkk monseigneur bi mu am root dund ak leer ci Yeesu Kirista bu bëgg a mëttali lu rëy ci àdduna fokk nga jublu ci Kirista bi tàllal ko loxo te bàyyi ko mu feesal la ak coofeelam